ak euh, coach xewar gi Mohamed Pereira coach ma lay wax félicitations suite à ce match nul yombul woon au début on a vu une très belle équipe de yaakaar mu ñëw imposé wu physiquement procédé aussi par euh, attaque placée ba dugal la mais au retour de vestiaires ñu gis beneen équipe bu xewar gi indi beneen jeu beneen dynamisme ak ay changement ba ngeen égaliser finalement avec ce match nul ba réaction nga yam waaw waaw je vous remercie maa ngi gërëm ñëpp euh, question bi nga posé mais noonu la fa mën a demee ah chaque fois euh, da ngay da ngay da ngay da ngay sa kër pour indi ndam mais boo ñëwee dina am beneen façade boo xam ne ni moom la équipe di indi. premier mi am nañ si occasion am nañ deux occasions yoo xam ne ni booy waroon nañ ko dugal dugal ñu ko mais par la suite ñoom euh, euh, occasion boobu mu buñ buñ ko kiiyee ba pare après par la suite ñoom ci la ñu amee seen occasion ba waa ji ñëw accès ba dóor bal bi bal bi dugg. mais au vestiaire lu ñu wax gars yi mooy les points. mooy maanaam match bi c'est pas encore perdu match bi jàq ko wax ak gone gone yi ba ñu xam ne ni carrément ni ñoom ñu ngi si biir match bi deuxième mi-temps bi ñu ñëwee nag ñu leen galvaniser nag looloo tax nag ñu am réaction boobu parce que ay gone lañ gone yoo xam ne dëggal nañ ñu waaw équipe bi nag maa ngi maa ngi félicité équipe bi nag ah, du fait que ils produit un bon jeu waaw loolu moom ñu ngi koy ñu ngi leen di félicité mais au retour nag ñun nag suñu gone yi moom ngàcce ngalaama quoi maa leen di remercier bu baax. mais mais dañu gis ne première mi-temps dafa mel ni défi défi bi l'équipe dafa mel ni dañoo xawoon sonn bien par rapport a la fraîcheur équipe bu yaakaar bi ñoom lañ gën a sentir ñoo leen gën a nekk ci première mi-temps c'est dû quoi à la fatigue wala phase nationale yi dafa des laisse ay traces ba tey. non non du phase nationale sax mais parce que xam nga jour yu bëri dañuy ñëw veille bi loolooy tax fraîcheur physique bi du du mën a am te et puis tamit cohésion équipe bi équipe bi en général ñu si bëri duñu ñu entraîné ndoo ñii dañuy jógee Dakar di ñëw loolooy waral loolu nag boo xoolee suñ milieu terrain bi looloo looloo ko indi parce que am na ñoo xam ne nekkuñu au type au top parce que équilibre bi du am parce que ñii dañuy nekk au top ñii duñ nekk au top léegi par loolu nag crème boobu moom boo ko boo ko boo ko xoolee après par la suite day ñëw quoi vite fait nga xam ne ni carrément joueur bi moom nekkul à niveau. loolu kese la woon loolu la ñu loolu la ñu remarqué li nga wax ni looloo amoon premier mi-temps parce que dañoo ko amoon déchet physique boo xam ne ni booy booy amoon nañ ko. léegi par la suite deuxième mi bi la ñu rectifié yeneen changement indi booy bu nekk du football excentré ñu ñëw football loo ko comme milieu terrain mu indi benn apport boo xam ne nii apport offensif lay doon quoi. léegi ñee ñee moom am na ñaar ñoo xam ne nii physiquement taxawuñu boo ko xoolee après la deux matchs est-ce que yaakaaroo ne seen taxawaay ci poule bi dina xaw a pour la suite. non non non loolu yaakaar ma ko yaakaar ma ko rien n'est suñuy nawle rek ñoo fa ne mais suñu deuxième match bi j'espère qu'on va on va l'assurer quoi. waaw euh, troisième match bi waaw du du moins nañ ko assurer am génne fi ak trois points yoo xam ne nii ñu mën a pousser ñu mën a nekk au devant. merci merci coach. merci merci jërëjëf. man nag man nag dama dama a voyagé woon nag man par la xaw ma ci dara. je viens juste d'arriver quoi. journée bii di ñëw muy waaw Euh, pour nga am victoire pour mën a am quatre points pour dellusiwaat li nga xam ne mooy compétition bi seen préparation pour troisième journée bi. waaw exactement préparation bi dañu doon préparation boo xam ne nii c'est ça sera mental et physique préparation boobu la ñuy def la la la adopté gone yi préparation boo xam ne ça sera mental et physique mais nañ def le tout ba mën a ba mën a ba mën a jël trois points incha allah. Pape Sall ñu ngi lay nuyu coach yaakaar ñu gis ne seen deuxième match. tey da ngeen ñëw indi beneen xar kanam face à cette équipe de xewar gi ngeen ñëw mener les débats en première mi-temps dugal ko très rapidement mais avec un jeu séduisant mais dañu gis ne deuxième mi bi équipe bi dafa mel dafa flanché physiquement ba ngeen encaissé ce but finalement ngeen gérer au score bi da nga dem ba ci biir nga gis ne match nul bi arrangé ne leen wala équipe bi de xewar gi dafa mujj changé contre carré carrément say plan euh, maa ngi leen di euh, encourager vous Euh, di wax ne li nga wax noonu euh, dëgg la parce que soo xoolee loolu euh, en premier temps dañu bëgg dañu bëgg parce que match dafa nekk match derby bu nga xamante ne ñun ñoo leen mujjoon a gagné ah ñun ñoo leen mujjoon a gagné par deux bi à zéro yàgg na donc loolu yëpp daf ci joué ba pare ñun ñu ñëw am trois points d'avance si ñoom ñoom ñu retrouver par zéro point donc ñun pression bi si ñoom la waroon gën a ëppee mais pression dafa ñëw ëpp si ñun ba yàlla def ñu lijjanti ko ba indi ko biñ indee marqué en premier mi-temps deuxième mi-temps pression bi gënee parce que envie de gagne bi moom moo indi loolu yëpp moo waraloon benn instant équipe bi daal di tëdd ñoom ñu am benn domination. mais mais dañoo gis euh, yaakaar bu contre bi mu bi mu contre Jokko beneen yaakaar la tey contre ak xewar gi. lan moo indi changement boobu noonu différence bi entre ñaari équipe yi. waaw voilà xam nga voilà dafa am contexte foofu dafa am ay contexte yu nga xam ne def caa des fois daf ciy joué donc suñu plan de travail yi nga xam ne ne dañ ko entamé woon soreegul woon presque dañ ko commencé muy dagg ñuy am ay manquement joueur joueurs yi ñi bu ñu ñëwee tey suba duñu ñëw di am ay problème ainsi de suite xam nga affaire nawetaan ak joru nawetaan donc loolu indil ñu problème ba nga xam ne ñu am cohésion bi ñu bëgg ak sur sur le plan bataille loolu mënuñu ko woon am am na ñu ma gis sax bi ñu nee ma coach waaw ndax kon yow yaa yor équipe bi nag ngay yor équipe bi équipe bi di mel ni di dagg nii yow meloo nii mosoo di liggéey lii man leen effectivement expliquer leen raison yi c'est pour cela nag moo taxoon suñu équipe doon dagg kenn xàmmeewu leen mais cette fois-ci ñu xam ne ne carrément ci équipe bu mag la ñuy fubalal te derby la ñu defar taxawaay yi bousculer leen def li nga xam ne ne moom la laaj mooy lii nii tey même suñu amee point baax na. cette fois-ci damay kontaan dama kontaan sax ci dama kontaan sax ci question boobu c'est parce que ñun déjà nii am na ñu tempo déjà mooy lii ñu entamé match bii nii nii ñu entamé gën nañu di xamaat joueurs yi di gën di xam taxawaay am na yenn joueurs yoo xam dama leen modifier seeni post parce que soo xoolee la arrière droit la le arrière droit moom. c'est un milieu booy la mi ngi soog a jouer senior musul jouer senior man maa ko indi adapté ko en en latéral droit même l'autre gauche booy la ci koñ bi la dëkk ñu xam ne lii match derby la te xale bu fippoo ci koñ di jouer ak ay naataangoom daan meew ak ñoom nga boo ko sensibiliser bi motiver ko rek mën na cee génn moo taxoon ñoom ñu indi leen ci loolu kon li nga wax noonu nii lañ leen di ñaaxeewaat gën a yokkaat entraînement yi intensité bi bëri c'est parce que li ci des lépp foofu la dafay am intensité.